Serigne Cheikh di gàmmu fii ci champ de course lañuy def su gàmmu gi jubsee njaboot yi daje su ñu ñëwee ci seen yitte ak ci ndigalu Serigne Moustapha lañuy ñëw gis ngeen ni champ de course mel ñax mi gis ngeen ni mu mel ak ay garab yu ndaw ak pofta nag nangam nangam bu ñuy ñëw dañuy préparer wu. ñii yor seen ëlleer di bay ñii yor seen jaasi ñii yor seen rato jigéen ñi yor seen bale ak seen tame balaa tisbaar fii fu la neex mën nga fee toog boo lalul sax sa jaada loolu nag lan moo ko indi bi jiitu mooy pas-pas parce que bu pas-pas amul doo mën a def dara bi ko ñaareel mooy ndigal sooy def dara nga am ci ndigal te ndigal bi mu ngi jóge ci Serigne Moustapha mais bi ko ñetteel mooy dañoo wax ni waa jël mbir dina tax ñu xam mbir ma nu mu toll parce que ku ñëw fii tey gis ñi fi mobiliser wu ni ñuy ñëwee ak ni ñu toll kon loolu tegtal la ci ñi fi ñëw macha allahu mbooloo la am na ñoo xam ni événement bi jaral na leen jël avion ñëw am na ñoo xam ne nii événement bi jaral na leen am na ñu jóge Ziguinchor ñëw am ñu jóge Tamba ñëw am ñu jóge Dakar dëgg la nag ñi nga xam ni ñoo gën a jege fii ñooñu ñoo ciy ëpp waaye fu nekk nit dina fa jóge parce que bisu barke la ndax lépp lo ci def yàlla dina la ci fay yiw lu melni suko état don def dina ci fay lu bari dem wut ay engin nangam nangam way nit ñi ci sen détermination ci sen loxo ye lañ koy defé waye lolu nak ci jàngale Cheikh Ahmed Tijani Chérif radhiyallahu taala anhu dani law taallaqat himmatul insaan bi ma wara al arshi lanalatu delu dellu ni himmatul insan qaahiratun ala jamii al akwan doomu aadama su amee yitte la nekk ca gannaaw arsh mu jot ci dina ci jot ñu ni doomu aadama yitte moo not univers yépp loolu moo tax ñii ñëw fii di def lii dañ koo def ci seen paspas ak ndigalu sëriñ musafa yal na ko yàlla aar suturaal ko